sama ñu ngi ziar waa delloo ziar bu baax mbaa lépp jaaw sant tur bi nan la Cheikh Ibra ñu gën ko xam ci mbalka yéen ñu ko xam ci mbalka yéen mbalka yéen waaw foo dëkk Tataguine ah bu yéen laa dëkk arrondissement Tataguine arrondissement Tataguine waaw ana grand grand bi mu ngi dëkk ba mu ngi si dëkk waaw si jàmm si jàmm bu allah lan moo war a teew bi bés bi de ñu benn xaarit moo fi xewle tey quoi ñu ñëw teew si ci bes bi mhm. pour dooleel ko quoi bilaay di ko ñaanal ndam bu sedd guy waaw kon yéen ak moom ba stade ah yéen ak moom ba stade waaw ñun ak moom ba stade kay incha allah waaw ko fas ah, wax ko mu tey rek xam ne moom lamb moom ay nit bu ñu la toppee moom da xam li la war rek waaw concentré ci bërëb bi bañ a maye dara daal tamit respecté sa adversaire boobu li yàlla dogal daal waaw adversaire bi am est-ce que yéen xam ngeen ko man moom xaw ma ko bu baax waaye peut-être moom mun naa mu xam ko waaye man moom xaw ma mm-hmm. waaw Eh, dafa am benn constat bi ci mbër yi quoi yéen mbër yu ndaw yi ak mbër yu mag yu séeréer lan moo tax mbër yu yi du ñu jege ancien gloire yi nga xam ne bëri nañ ba bàyyi bëre comme par exemple tey gan mi sa mag bu bërin ba bàyyi bëre yow wala kenn ko xamante mu bëre ci ci dëkk ba du ñu jege mbër yooyu duñu jege aussi pay yi ne yàlla mën ah, waaw na si de moom man moom dama jege baax a baax waaye du ñëpp nag am na ñoo ne duñ leen leen am na ñoo ne dañ leen di jege tamit man moom gaan moom maa ngi si tànkam sax suur daal billaahi ak ñeneen ak waaw. naka ay Kiriba. ah naka ay Kiriba. Kiriba ñoo ngi si jàmm bu baax. waaw ñoo ngi si jàmm bu baax. mel ren dafa mel ni gën a. pourtant génne naa nag. Hmm. waaw amoon naa benn combat bu fële Diofior. combat waaw yàlla may ma ci ndam. final na Diouroup tamit. raw ga di maa ko final waaye damaa mujj ñàkk final tamit. dimanche bi di ñëw am na benn 1 million 500 Grand Yoff ak 3 millions gaal gi ndax mën nañu xaar. Eh, waaw lamb moom xam nga rek dañ koy waajal rek la moom dañ koy waajal rek bu sotee rek dañuy teew bu tamit bu kiyee tamit ñoo xam ne loolu la waaw jaajëf waaw looy wax supporter yi supporter yi nga xamante ne moom ngeen faral moom ngeen fas yéene àndal tey dem stade loolu leen di yëg supporter yi xanaa ñu ñu ànd rek ànd ak yar tamit discipline xam nga wàllum stade moom moy loolu buñ demee ñu indi fair play daal bu yàlla may ñu ndam ñu ñib si jàmm waaw ci séeréer anda mbir euh, namahinal siborten ñom ɓubne antano violence mais a refa nga ñom xawna en général pour ñoma facto wiine ñoxore ngañre a yooɓe ten quoi xa waralu différence a waaga fak sax sans tajik sécurité kene koy anda ye ñom moom fierté o séeréer ñom ka ref fierté um quoi na faal we koy roga wasanamo ten violence ten moƴu ɓeka den no ñom a jega and naye ka topa pir ke pour a nguɗa soom yaqana wiin affaire kene mbir ka fa po waxane wiin a topong to ndef ke wiin sax an kiro moomo dangatu pour violence seulement wa refa nga sereer moom sereer moom jom rek a ñoowdata i a anda an kiro no jom a bugin me moƴo bugo quoi sereer moom ande violence i da ngogorlo rek i anda ye moom o sereer njom

o ngaranga bo leyel mbir refo il faut que te jeg ka andoona yee xan o jaɓo ñaat xan o jaɓo daal na o bugangaa ref mbir so meɗ na xooxof tamit seda lay xa fi'anam neke wala fi'anam naana jegkiro ke bugoona ko a o paal koy seede kene ka ndaɓa autorité affaire kene a laya a qoox den mbañe teen dara mbañe sikel affaire kene a refanga o seede ko jem moytoxa moytaxa leen to jariran kene soom da ndaɗta in saay kaaga yo a jërëjëf jaajëf